ñi ëpp liñ bëgg wala. c'est ah, la loi de la majorité. kon dañu doon defe ne xëj na bu nekkente ne ñeneen ñu dul jullit rek du génn cinq pour cent yi kon quatre-vingt-quinze pour cent mooy ci téeméer boo jël bu ne looloot buñ ko bëggee tollaat tollaat la xàq ak xàq defe naa demande bi ci des mooy dina jeqiwaat tuuti nag ci suuf ci yenn paradigme yi. tegaat ko ndax bu dul loolu waxtaan bi sax du équilibré ci ni ñu jële jël jigéen bi ñuy wax fi mu nekk ni mooy jigéen bi ci biti di njongante di xëccoo ay post ak di wut lu mu am wut dañuy dellu ci ci bu ñu spécifié nag ne amuñu euh, xam-xamu boobu personnel bu ñuy wax waaye kàddu lislaam euh, ak euh, diine défendre diine fala suñu wax gën a màcc jëm xam nga ko baax ki suñu borom bi mu ne walla xadd karam na bane aadama mu ne ki mu gën a fonk ci lépp li mu bind mooy doomu aadama bi mu waxee loolu dafa wëlbati ko rek daal dina jigéen kaay mu ñëw mu ne ko ki may wax nii yow rek yow yaa ma ci day te kooku mooy wax mooy xalifatullahi fil ard mooy ki assuré vicariat suñu borom ci kaw suuf mu ne jigéen mu ñëw mu ne ginnaaw man bi ma jàllee rek yow la moo tax yonent bi na alayhi salaatu wasalaam waa ji def ko laaj koo gën a koo war a gën a fonk mu ne sa yaay mu ne ku ma ciy teg mu ne sa yaay mu ne ma tegaat ci kan mu ne sa yaay mu ne ma tegaat ci kan mu ne sa papa suñu boroom wax ne jigéen yow sax laa bind ci fitra physiquement ni nga xam ne yow rek yaa mën a denc nit ba àpp mat mu gën jamono yow laa bind ci noo xam ne yaa am tendresse bi yaa am douceur bi yaa am patience bi pour moolal ma kii defal ma ko al insaanul kaamil mooy nit ku mat loolu jigéen buy xëy huit heures du matin di wàcc huit du soir doo ko def ku baax dafa tudd léegi maam jaara buso wax baatu soumission li ci jigéenu jullit bi ak kilifaam nañ ko defaraat du soumission soumission sunu borom rek lañ koy def du soumission de tutelle la suñu boroom dafa jël jigéen dénk ko responsabilité bii ma leen wax ne doomu aadama yaa may njëkkal ci moom déjà intégrité physique rek yaa ci répondre yow yaay yow jigéen kon waroo sax sàggan ba xale pat wala mu làggi wala mu lakk wala dara jot ko loolu jàll mu ne njub alhuda njub bu xàmmee rek yaa may defal ci moom njub na nekk nit ku jub ndax jub moo lalal mboolem jikko yu rafet bu jub ñëwul beneen jikko bu rafet du ñëw pare mu ne léegi nag yaa may defal ci moom ferñeenti tawxiid mu xam ne papaam ak yaayam ak moom dañu am borom bu leen moom lii yëpp ba tey maa ngi ci responsabilité jigéen ak dayo bi ko lislaam jox moo tax maam jaaratulaahi Buso mi nga xam ne ñun ay taalibeem lañ bi Cheikhul Khadim matagul dem daara six ans sept ans xam nga lu mu ko doon wax Ahmadou gaa yu baax yi dañ daan taxaw guddi gaa yu yàlla yi dañ daan taxaw guddi na inna mina dax bi saalihin xiyaama layli mu ne ahmadu gaa yu yàlla yi dañ daan taxaw guddi sëñ Tuubaa nag biñ ne gaa yu yàlla yi ak ñu baax ñi rek bëgg naa mel ni ñooñu identifié wu ci ñooñu bu guddee ci âge boobu mu bàyyi ba ñëpp tëdd mu génn ci ci ëtt bi ñëw taxaw kon yaay boobu wutalul doomam dimension matérielle pour du ko wutloo alal wala lu mu am wala déjà mu ngi mu ngi brancher doomam ci léri borom spiritualité lolu moy la dimension spirituelle de la maternité kon bo gisee ay loi ak luy àtte penc du taw ci jawu ci dafay adossé wu ci le substrat socioculturel askan bi nga xam ne moom ngay légiférer bu ko defee jigéen bii dayo la ko lislaam jox daal dina góor suñu borom ne góor yow nag gis nga kii ak doomam ji yow góor eh, jigéen mi ak doomam bu ñu xiif bu ñu mar bu ñu rafle seen sécurité yaa ko yor lu ñu soxla na leen fekk fi ñu góor ne ko kon suñu borom xanaa man xanaa man bindaan boog man ñii seen bindaan mu ne déedéet waaye yow yoral nag tutelle bi yoral kilifteef gis nga nu mu tudd li féministes yi def pour ñu di ci signer ah, ah kay jërëjëf pétition bi ñu def bi ñuy jàmbat dëgg-dëgg jàmbat bi ndax dina ñëw ci euh, seen revendication bi ñu wax ci turu ministère bi nga xam ne amuñu courage assumé waaye baatu genre bañ dindi moom moo leen naqati moo leen naqati waaye man di la wax ne dañu wax ne que gom euh, gouvernement bu bés bi daf leen ravaler au rang de reproductrice nga gis saaga bi ñu saaga jigéen ji ci kër gi defe ne kii ci kër gi toog yor njaboot gi di ko yar ba bu ëllëgee ki si biir nga am góor gi nga xamante ne gis nga soo gisee góor nawoo ko mereel yaayam kon ñàkk a kër yi ak ñàkk a nangoo toog ak ñàkk nangoo sëy tax na tey penc mi mel nii mu mel parce que jigéenu senegal warul am benn fierté ci homo sénégalensis bii mu jur tey waru ci am benn fierte

dama jël tarbiya def ko une matière spécifique pour pour agir ci jikko xalé bi matière yeneen ñuy jàngalé dama ko bayé ñuy jàngalé tarbiya bi la jël sama école buñu yéwo yeewoo démé ba heure ndekki jot xalé yi dañuy toog kenn ku nekk sa ndekki femme de chargé personnel bi yépp wër leen ku nekk def nii di xool yi lé la nga gis ben xalé ndeysaan ñu tegal ko ndekkeem mu ñëw nii lay def mburu bi ne ah. am nga ne ko waa baax na téyel li ci des nag yow tamit hmm. jëlal lool hmm. am koo xamante ne day téye bas hmm. may ma may ma ma nga ne ko déedéet yamal yamal ci say te su ma leen jàppaloon balaa benn classe ma def ci ñoom wax lu dul dëgg baaxul xajul ci émission bi bés bu leen di teelee nag ba ngeen invité ma dinaa leen dinaa dinaa leen ñëwal ci fànn boobu parce que ñun en tant que ay jigéenu jullit ñun loolu la ñu bëgg a revendiquer suñu état du ay post richesse su askan du tel góor tel jigéen wala ressources minières yi ñu ko ca wala dara richesse su askan dëgg mooy doomu askan boobu naka lañ ko modeler ak nañ ko defaree bariwaat na ruq de damaa bañ a monopoliser parole boobu